dañ lay ah, ay saaga kay la def ay saaga karibu. Amingi duga. Al tenga ci duga. Wala borom caaye ji, borom moom. Borom caaye ji benn loxo la moom Te nag benn daa mën a xaañ sax. waaw gauche bi. benn loxo la yor benn loxo la yor. handicapé la benn loxo la yor gisoo ko. déggal déggal loolu wax wala jàmbur yi ci seen yëngu baaxul de baaxul de dégg seen baaxul dafa doon dégg nga téléphone yi lacrymogène lacrymogène même ma jaar booy occupé nañ Allahu Akbar, Allahu Akbar. moo ma jaaxal ni ñuy duggee ci biir nii xam naa ñàkkul ne yor nañ karité ñoom <laughs> comme ñun ñu yoree karité gisoo bi dafa foncé woon mais gisoo mujj daw reculer waat a bari dégg nga ah. saa yi baaxul de génne si oto bi génne si oto bi. génne gaaw ba ñu ba ñu yàq a ñaari. ñaari côté yëpp seen baaxul. déedéet. ñaari côté yëpp seen baaxul. dañoo dëgër bopp bàyyi leen ñu dem. bàyyi leen ñu dem. mooy damay ragal ñu taal seen aussi. gars seen bal day jeex lii rek moo mën a. sànq xeer xeer lañuy lañ lañ gis xeer lañuy. dégg leen ni ay xeer lañuy. lii seen bal yi dafa jeex dara. teman ikut jangan jangan keren teman ini keren berasa terakhir gitu yi ma lay mujjee envoyé mu ngi koy pare mu ngi leen benn léegi am na yu ma lay envoyé mu ngi koy pare mu ngi liggéey bu yàgg ba léegi ma def loolu rek laa doon def. taw ñu ngi mu teg ñu mu ñu mu yëngoo. wala borom benn loxo bi ndeysaan. benn loxo la. ji bëgguñu seen bakkan yi. benn loxo la benn loxo la waaye jéggi dayoo lool dina ko gisal ay ay saagal jamono jamono